danaan eh, daw na yaram daw na yaram trop sax waaw ndax doo xoole tamit ki nga xam ne moo jël si joor hmm, bokk te joor dara naan moo ko fay yabal ko fi mu ñëw jël si ko waaye médecin bi tamit deful li ko war ndax ñu fenn woon joor ñoom la woon a contacté laaj leen ba laaj leen ba pare daxam ah, doogo joxe joor ci loxo yi wóor ay dèjà mi ngi ko jox ki mu ko jox te naa moo ko fi yabal miin naa ko ba Tamba sànnil ma fa tamit affaire bi moom série dama yërëm joox joox wax dëgg dama ko yërëm dama ko sax naa daa moom baaxut tey baaxut ëllëg naa moom kenn xamul ban façon nit la yéen ci jàmm waa TV def naa leen ay namm de mbaa yéen ci jàmm bu baax a baax a ah, bi moom doy na waa trop hmm. Pape moom affaire yi doy na waar lu mu bëgg dafa waroon a bàyyi nag naar ñu tëj ko ñu enquête ko ba jàpp ko ba tëj ko waaye affaire yi dafa yomb trop commissaire bi moom lii doy na waa bu dee commissaire yi moom nii la ñuy liggéeyee moom dañ teg seen place bu foofu bëgg xaalis ba mu la jaral yenn yi li moo tax kun rey doo feeñ kun sàcc doo feeñ waaw waaye ñuy médecin yi tamit ak sage-femme yi nañ xoolaat seen liggéey bu baax nit boo ko indul ci hôpital bu ñëwee di ko jël si ne ko joxuma la ko waaye tamit ñoom it problème bi am nañ ci responsabilité parce que ñoo def waruñu woon a bàyyi jooy muy génn ñu koy jox kon ki nga xamante ne xamuñu ko tantaan na rek ñu génnee ko waruñu ko def liñ def moom moom dara wóoru ci dara tamit maa waruñu ko woon a dàq dañoo war a xam ne rek affaire bi yenn temps joor ko woon dàq nañ ko bàyyi ba mu tane asalaamualeykum yéen groupe waa TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen xamal ni rek maa joor ak joor moom neex na épisode bu neex la ba tax na senegale yépp koy suivre ah, te gis nga joor ndaw si dana ko sànni rek dana ko yóbbu fa yóbbu woon gorom bi waaye nit ku bone ni naar man mësuma ko gis naar mi lakkal na ñii de mën de musuma gis ku nekk ci kër war a defar defaroo naar daal man jaaxal na ma naar ngeen defe ne du ma saray doom ji sax ah man ne nit ku soxoree nii man jaaxal na ma yenn yi nu ko nit àttanee yow sa doomu càmmi nga war koo jàppale jàppale woo ko yow sa jabaru càmm yi nga sànn ji ah doom ji bu yàggee yàlla bu jël jikko yaay ji sax yaa de boo moytuwul dana defi yaayam de bu moytuwul yaayam te man paa bi li ma ci jaaxal paa bi xam na lépp ba pare jël dëgg ci tànkam naan ndénkaane ndénkaane lu bon jërul denc ndénkaane lu bon buñ la ko joxee jërul denc na bàyyi naar mii naar baaxul naar baaxul te buñ ko toppee ba mu sës kat naar mii kat te man naar li ma ci jaaxal kat man naar suñ ko bëggee taj walla ñu def ko dara paa bi jël xaalis fay bu ko defee ñu bàyyi ko loolu pour lan la waaye docteur yet li def du dëgg du yoon ndaxte nit bu fekkente ni ñëw na ah ah taxaw ni la kii dama ko bëgg a yóbbu maay yaayam wala maay eh, rakku yaayam yow waroo koo jox malaat bi yow li nga war a def ki nga xam ne mooy seen seef te ñu indi ko fi danga kaa war a woo soo ko jotul nga ne ko ah xaaral feeg diir ba xam ndax danaa ko jotam déet soo woowaatee jotu ko nga jox ko beneen dale waaye waroo koo yëkkati yëkkati rek jox ko yu mel noonu mooy indi ay cas yi kaay kaay kaay yoo xam ni kenn du ko mën a euh, tollore ndaxte xam nga yow indi woo fi malaat yow musuñu laa gis nga ñëw rek ni man maay rakku yaayam wala maay magu yaayam ñu yëkkati jox la ko ah loolu baaxul nañ seetaan nag li ñuy def nañ seetaan li ñuy def docteur beeti man yedd naa ko foofu trop waaw yedd naa ko trop. asalaamaaleykum sama maa ngi di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di jégalu nag ci yéex a jox contribution bi problème réseau la amoon dem ba tey seetaanu moom film bi man maa ngi nii léegi léegi laa ko doog a seetaan théâtre bi léegi laa ko seetaan parce que biig jéem naa ko jéem ba sonn mais xaw ma mais yéen nga ci jàmm na mën naa leen topp nag na mën naa leen bu baax di kontaan yéen rek bu baax a baax tey bi moom épisode bi ma seetaan léegi moom wallahi sama xol metti na ci trop doy na waar trop si man nagam naa jóob mi dana nekk nii rek di def lu bonam rek di réussir toujours man dama yaakaaroon joor moom li ko dal doyoon mais léegi ñu bëgg sàccaat encore yóbbu ko li ji feneen dana metti trop man daal man sama xol jaxasoo na trop jaxasoo na trop ci naat jóob mi na sama xol Pape Birahim na sama xol yaama tàngal na sama xol ñoo wax yaama nee moom li moo def moom joo taxul mu def ko yërmande taxul mu def ko donc amul benn xol yërmande moog yaayam a yem seen xol ñoo dëgër mais Pape Ibrahima moom xam naa moom dina mus am déception trop ndax moom lii muy def moom lii muy def moom c'est trop nan la nit di raya bakkan nga jëkk di ko couvrir di naan sama yaay yow sa yaay même bu la waxee ni la toppatool ma diw wala gàttal ma diw lu tax nga bàyyi nit ki muy rey bakkan hmm? kii mooy yow bakkan ku dul sa mbokk daal yow faale woo ko paa loolu laa gis ci moom parce que moom daal dafa jàpp ne naar rakkam la lu metti war ko dal mais jaamur bi ñu rey bakkanam rey ka rey ku rey nit amoo loo koy wax xamu naan man damay sàmm sama kàddu yaay ak damay nangam sàmm sa ci jël bakkanu doomu jaamur parce que gisul Mariama ku ko taxawal moo tax mu bëgg jël couvrir joor mu def ak Mariama rey bakkanam te ñaari bakkan la naroon rey dafa naroon rey joor naar dafa naroon rey joor rey yaayam léegi nag yàlla def na gaa oto ba joor nekk ci mu rey Mariam léegi ñu jël ko Pa Ibrahima bëgg couvrir noonu naan du dugg kaso léegi bëgg jël couvrir que ni di dugg kaso parce que kii deretam la léegi addina bi léegi noonu ban monde lan nekk ak addina bi léegi lan moo xew nit ñi lan mooy seen problème ah mu fekkoon ne alal la sax ñooy alal moo tax mu def ko mais moom moo am alal ñuy wax nag waa ji moom ñu koy corrompre muy nangu ndax ak xaalis xam nga léegi ñun xamatuñu ban monde lañu nekk addina bi léegi xaalis yàq ko yoon kenn respecté tu ko yaakaar nga ni Pape Ibrahima bu taxawee wax ne man sama famille du dugg kaso sama famille du dugg kaso te tegu ko fenn du ci alalam naka teg mu ni famille du dugg mu jël naar jóg mu mu ñu noonu muy dund di dem te rey ay bakkan te ba léegi mu ngi continuer def ay bêtisam ma nga nee jël joote mun naa man naar xam naa ko naar xam naa ko ba pare nga xam ne lii moom moo ko def nga jëkk bëgg a couvrir bañ mu tëdd kat joore nga ne di dund continuer di dund ay miracle te maajoor wax dëgg yàlla yenn possibilité yu bari am ko waaye man daal man xam naa man man sama xol daal dafa tàng sax fi mu parfois damay toog ba sax tey jii damay toog seetaan ba sax ma ne ma gaa ci téema kaa arrêté ban tega seetaan sax man naa mënu ma gis kaa bi bon man musuma ko gis ba pare continuer di réussir lu muy réussir doy na trop doy na c'est tout naar mënu continuer rek lépp lu mu sumba rek mu réussir dafa ëpp doy na ndaw dëgg yàlla ma son sonn naa man mais maa ngi kontaan ci yéen lu bëri bëri di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal jullit yëpp yéen a yàlla defal jàmm te dëgëral seen taxawaay kontaan nañu trop wax dëgg yàlla bu du woon tey yéen ñun ñii ku ci mel ne man mi du ko parce que tàngu te moom aw ma ko su ma ñëwee nag moom sama téléphone laa am mu ma ñëwee def sama connection connexion seetaan lu ma bëgg a seetaan waaw seetaan ak sama sang-froid xam naa naa koy seetaan mais kontaan naa ci yéen lu bëri bëri di leen ñaanal jàmm rek ca kaw ci kanam incha allah